221 Diaspora 221 pour retrouver toutes nos informations à chaud comme à l'accoutumée, tapez www.diaspora221.tv et optez pour des informations fiables et vérifiées. il faut ñu jàppale ñu ministre de la culture aussi ñu ngi ko ciy woo nañ ñu woo toog ak ñun déglu ñu parce que ay ndaw lañ te macha allah ay projet kase lañ te bis bu ñu oowee dinañ dégg lu ñuy wax te ndaw yi dinañ avancer te dootuñu amati temps xam nga ndaw yi léegi dañoo am temps toog ci internet bi di saaga di def ay yëf dañu leen bëgg nañ dem na démystifier leen génne leen ci loolu woo leen ne leen kaay leen ñu liggéey parce que amul sens ku nekk na xool loo amal sa bopp bu la fa euh, gouvernement fekkee day doon bénéfice yow du dëgg kon boog nañu jàppale nañ ñu bàyyi xel te monsieur le président nañu woo. lan mooy sa secret nga wax ko xale jigéen ñi parce que bi nga organisé bëri nañu organisé CICES ah, bi muy organisé yow organisé boo yow mosoo organisé teewul bi nga organisé macha allah na moo dara lan mooy sa astuce wala lan mooy sa secret ba lii mu am réussite bi. waa sant yàlla euh, secret bi mooy déjà nangoo liggéey nangoo liggéey concentré sama muñ te yàkkamtiwu ma lii togg naa ko ay année doon naa couvrir ay événement si sama snap euh, ku ayee rek ma dem couvriral la dugg defaral la ba mu baax à chaque fois da doon am contretemps. yaa ngi togg terrain bi. maa ngi togg parce que su ma bëggee organiser rek. Euh, corona bi amoon après am ay affaire ma nekkoon en état instant bi bébé bu am 6 mois laa bàyyi. donc xam nga metti na ma koy fighting ànd ak nag sama staff ak sama équipe sama assistante nday awa ñu ciy liggéey ñun ñaar boo ak waa Kaay ma jaay la ma créé groupe boo xam ne Kaay ma jaay la ñëpp ñu ngi ci exposant yëpp 73 personnes yëpp ñu ngi ci biir ku ci nekk da ngay joxe sa avi su ma bëggee def dara dama leen di laaj donte maay organisatrice bi mais dama leen di laaj xool li ci gën a baax ma jël ko li nga xam ne demeewul noonu ma teg noonu loolu mooy secret ak muñ. ak xaar bañ a yàkkamti. kaay ma jaay la est-ce que jotul ngeen ngeen organiser ko ngeen doon association ba pare am récépissé nguur gi bàyyi leen xel ministre bi woo leen di toog ak yéen di def ak yéen yu mel nii ngeen di am ay séminaire ba pare mu professionnel. d'accord je d'accord xale yi wax nañ lool ci groupe bi affaire association beeg yooyu yëpp wax nañ ko mais dafa fekk ni bañu ma association soo gisee ma àngu ko man kese xam nga àndu jigéen dafa garaaw groupe dafa garaaw. tey ji bu dee yéen ñëpp a war a jël décision ku ci nekk day bëgg a jël loolu moo tax ma reculer jël ko man kase personnellement nga xam ne tey lu ci mun ci am dama leen di laaj seen avis ma concerté wu dem xool ay mag ah ku ci mel ne sama benn mag boo xamante ne ñu naan ko Nabou Diallo ah ñu naan ko Nabou Diallo c'est mon jour damay waxtaan ak moom hmm, damay woo ku mel ne Sala Lam bu Elimane Lam damay waxtaan ak moom si nit ñu baax ñi damay waxtaan ak ñoom ñu may jox seen xalaat kon donc. Euh, ci loolu laay sëkkandiku pour mën a def yenn yi mais soo ko defee association ku ne day bëgg a wax xalaatam mais teewul nag dinaa xalaat ci mbiru association bi bañu ma ko mais damay bañ. promotrice lay doon ak événement. c'est ça. da ngay tëgg sa événement ñoom ñu annonceurs yi ñëw nga liggéey ak ñoom. yàgg naa koo bëgg a def xale yi tamit li ñu wax rek comme bëgg nañ ma def association mais dama ñemewul association ñemewu ma ko du tonte xaalis bi lañ ciy xaar dara. parce que fii lépp luñ fi jot rek defaat nañ ko ci bis parce que euh, réussite ak ndam dafa neex te jaral nañu moo tax lépp luñ ci jot rek retour defaat nañ ko ci biir macha la ñu sant yàlla. lan nga ak sa partenaire yi ah commencé ko ci diaspora 221 commencé ko ci ñi la wóolu jënd stand yi commencé ko sa mbokk yi ñi lay liggéeyal say employé tey boo doon wax mot la fin remercier ñi ñi jàppale Dabaye ba ngay toll fii lan nga. diaspora aw ma seen fay waaw diaspora aw ma seen fay Babacar aw ma fayam lu ma ne ma nga ca dama am nag tamit sama sponsor leader ñu naan ko Jojo Glow Skin euh, jigéen la di liggéey comme man xale la di liggéey comme man donte mu door ak man ma jàppale ko ci publicité yàlla indi ko fi mu àgg tey waaye fàttewu ma lu ma daf ma ciy mosal keroog bi ma taxawalee événement bi moo njëkk a yëkkati ay millions jox ma ne ma doxalal ku ci mel ne Kang Style borom perruque yu baax yi waaw perruque bu ma takk moom ma ko jox du ma fay dara macha allah te sama nawle la ko neexoon damay fay téeméeri junni wala cinq deux cent cinquante mille yi nit ñi di fay di jënd perruque ma fay ko mais defu ko day yëkkati ne ma demal defal ba mu baax kon ñooñu dama leen sant di leen gërëm di sant ñi exposé ñëpp parce que woolu giñ ma woolu aw ma seen fay. boo wax ma am na cent personnes yoo xam ne des nañ bëggoon a bokk mënuñoo bokk kon loolu yàlla la. am na fu ma jëlee am na fu ma fu ma fu ma yóbbu macha allah tabarakalla may dolli di sant yàlla di sant sama yaay bu baax. da ngay dolliwaat balaa fin décembre déwén wala di nga ko dolliwaat ci ci atum 2023 bi. te gars yi ngi koy laaj de man sànq mi duggee tànt yi ñu ngi naan pourquoi pas ñu dolli. waa gars yi ñu ngi naan suba sax naa gis. xam nga dama yor njaboot yor borom kër yor doom donc dama sacrifier lu bëri pour lii comprendre nga léegi je suis ma ma ma muñ benn instant pour njaboot gi ñëw ci liggéey bi mais bu jeexee nag jeex na mais pour organisation bi ñoo ngi xoolaat fii ak 6 mois incha allahu rabbi. félicitations sister jaajëf kontaan nañu. nous sommes avec euh, Youssou ah grand Youssou mi nga xam ni il est à côté de Wally Ballago Seck lépp lu jëm ci jàppale ko ak dooleel ko moom ci la nekk mais aussi lépp lu jëm ci euh, ay événement yu mel ni am daf si am ay nit yoo xam ni moom dañ ko si bëgg mu fi teew tey jabaay moo woote effet kaay ma jaay ñu fekk si la fi avant tout ñu bàyyi la nga nuyu sénégalais yi lay seetaan ci diaspora te nga wax ñu tamit sa diggante ak Dabaye. waaw merci beaucoup euh, ñoo ngi bëgg ñëpp di ñuy seetaan à travers 221 diaspora 221 ah di bëggee ñëpp ah di nuyu ñëpp di leen ñaanal at bi ñu ne te mu toll ci di jeex ah li ci des yëpp yàlla def ci ay xéwal ah jàmm ji sax daak tabarkàlla at bi ñu jëm xéwale ah dàq bi ñu jóge ah ci fànn yëpp nag ah di ñaanal jàmm ci réew mi di ko ñaanal ñëpp ci barke rasul lan moo sa diggante ak euh, Dabaye waaw Dabaye Dabaye suñu suñu jabar la suñu jigéen la suñu xarit la euh, di sëy ak sama rak ñu dëkk donc euh, bu dara xewul këram la ñuy yendu fa la ñuy fanaan muy togg di ñu jox di defar di ñu bernde tubaarkàlla séex ak ñun jàmm kon daal sëykat la bu baax seykat bu mag a mag a mag tubaarkàlla li ko war ci sëy bi yëpp mi ngi koy def donc di jàmbaar tamit di di di di di di ku bëgg la di fexe saa su ne muy innové di créer di def loo xamante ni dafay wone ne jigéen baax na góor baax na jigéen ju ne góor a ko war a yor waaye jigéen bu jugee wutali boppam it day gën a neex rek donc bu organiser lu toll nii bon c'est normal ñu ñëw ah soutenir ko ah ko ah ko ba mu yëg ne on est à euh, waroon na ko xaar mais du xeex buñ ko xeex euh, dafa fekk ni nit ku ne saa yu xëy rek dina fexe wuti lu mu am gis nga boo demee ca marché ba jaaykat yi bëri nañu te ku ne day jël wërsëgam mais affaire bi du organiser rek taxaw di xaar moom innové na def na lu tax nit ñi fekk ko fi donte nekkul ci première position mais créé na ba tubaarkàlla euh, ku mu taxul woon jug sax di fexe ba ñëw dañ kumpa xool fi xew donc dafay wane na yëf yi xalaat la te kenn mënul muusa ko mu cat ba liggéeyee sa xalaatu morom tu vois na ku nekk di wut di créer na ñëpp créer bu ñu ñëpp créer mais affaire bi nice ku ne sa ngay jaay ah kenn mënul fexe ba jël wërsëgu sa morom donc mais nañ ko rafetal bu ñu collabo bu ñu collaboré woon xëy na dina gën rafet wala mu gën a yaatu mais loolu yëpp il faut première Euh, euh, connaissance am ak ak expérience bi ba nga gis ne xëy na bu ñu defoon nii mooy gën wala bu ñu defee ne mooy gën. kenn mënut a yàqal sa borom. kenn mënul yàq ku ko jéem xam yàlla du royal kenn moroomam. alors grand Youssou euh, en plus d' acteur culturel récemment yaa ngi initié lu mag a muy Salgar Ndakaaru yaa ngi sargal lu garaaw nag. xam nga ko ah mais. lébu yi fi lañ ne Dakar rek jara sargal le premier janvier yaa ngi dem Sorano salle bu mythique la artistes yu bëri ay ndaanaan jaar nañu fa nga copte ay Kiné Lam Wally Ballago Seck wéeré ba yow yaa ko cité après ci kanam tuuti événement boobu loolu ñu ci mën a wax waaw mais di kontaan d'abord ci sargal Dakar ndax nag Dakar rek la ñu war a sargal Dakar oo dalal ñëpp Dakar mooy dëkk bi nga xamante ni moo moo njaboote ñëpp kon jot nañu sargal ko euh, wax nga ko léegi Sorano salle mythique la euh, Kiné Lam fa lañ ko auditionné mu nekk fa jël fonction di liggéey tubaarkàlla ba fa ba retraité ah wala ba ba ba démissionné wut yëfi boppam ah Adja Xaar Mbay ma jaaga fa la na ba retraité soo ma Mama Fall Adja Daaro Mbay ak ak tant donc bu ma ko boolee moom ki na faatu am Fatou Géwël Mor Thiam Géwël mi nga xam ne tubaarkàlla dafa xew ci jamono lool ah ak mère Ndiabi ah ak Waly Balago Seck loolu xam nga ne loolu loolu loolu loolu man rek ko ñeme. ay grand ay grand ay grande voix nga boole ci benn guddi est-ce que cosaan euh, fële dina ko attan Sorano. waaw mais c'est parce que le concept c'est de faire un spectacle devant 1128 personnes. Sorano 1128 personnes la. lu ñu bëgg a def mooy wane ni Dakar est en fête et euh, euh, la ville mérite d'être gâtée ah ñuy jéem ci gâter la ville et ses habitants ñu ne nañu def spectacle bi euh, euh devant 1128 places. On est partenariat avec la CNTV qui va le diffuser euh, en direct. Donc ñi nga xamante ni am nañu billet mais na ñu gaaw ñu ñi bëgg na ñu gaaw jënd ay billet te xam ne billet yi bu jeexee télé rek nga ko mën a seetaane donc euh, l'idée c'est ça l'objectif euh, loolu la objectif boobu la ñu amoon mooy fexe wone spectacle au vrai sens du mot mais Sorano nag ku ne xam ne na fa la jàkkaarloo juddoo. te ñun concept jàkkaarloo la ñu jël yóbbu ko ci sargal Dakar ndax jàkkaarloo a déjà fait son temps léegi lu ñu dese mooy euh, créer beneen turu événement moom it mu ñëw pour def temps am bon bii di première édition nag ñu kontaan ci ñi ngi ci àndal ñëpp ndax dañ ma yombalal lépp xam nga ne ñi ma boole boole leen yombul ñi ma dajale dajale leen yombul waaye ñii sama yaay lañu ñii sama ay ay frère lañu ñii sama ay nit lañu ñu nangul ma lu luñ musul nangul kenn def événement ensemble ci benn guddi donc dañ leen di gërëm di leen remercier di remercier Pape Mame Less parce que moom mooy initiateur u Jakaarlo def ko plus de trente ans tey mu mu mu jox ma ko pour ma pour ma àggali ko may ñaan yàlla oyofal ko. relais bi assuré na ko. waaw ba ba ba ba du ci am gàccee mais di remercier Aziz Faye Zo mbay ñi nga xamante ni ñoom laa ci àndal ah Faye Birame ak mbay Zo di suñu mag di suñu xarit boobu ba léegi ñu nekk ci di di waar waar bu amul fenn rien que pour satisfaire et et et et euh, promouvoir la culture et la musique sénégalaise ah te ci génération démb la bu tey ak génération future bii di ñëw. xale yi ñoo koy mujjee ñoo koy ñoo koy ñoo koy continuer. ñooy wéyee ndono li de. waaw ah, mais rendez-vous incha allah premier janvier. soo fee sa cosaan fële sa Sorano autant pour moi artistes yu mag yëpp dinañ fa nekk Kiné Lam Wally Balago Seck. di ah, Lour Mère Ndiaby Mor Thiam Guewel mi nga xam ne daa xew. waaw nga idole mot nga référence. dina yëngal mais Youssou euh, décembre c'est la pluie des années. Seck génn na Youssou Ndour génn na Pape Diouf génn na ni artistes sénégalais yi. ñu ngi liggéey ngir melomaan am dégg-dégg bu analyser album bi. mais lu naaj man damay génne suba. suba li ngay def waay. da ngay woy wala lan ngay def. damay <laughs> de ah lu ñoom di woy. père looy a bu subaa nga dem déglu déglu li may def nga e génne dinaa génne benn la premier ma génne le reste. waaye. exclusivité bi nañ ko xaar Diaspora 221. xaar Diaspora 221 e la bu 4 titres. ah jot naa génne ñaar léegi dama ci teg quatre mois de mars incha allah ma génnee l'album en entier EP e bi mi ngi tudd Papa. Ah, yaa ngi reelu la nar a yéem. alors mbokk yi on continue de plus en plus ñu ngi fii ba léegi ci effet jaay ma bi nga xam ne Dabaye moom moo ko organisé une femme battante ki ñu taxawal nag il n'est plus à présenter au Sénégal. mooy Aziz mu baax mi géwél bu civilisé géwél bu bari valeur. Aziz mi nga xam ne moo nekk si wetu Waly Balago Seck rakam jooju di ko jàppale mon frère Aziz ma nuyu la bàyyi la nga nuyu ñu lay seetaan Diaspora 221. salaamaaleykum waa Diaspora 221. man Aziz Faye 55 maa leen nuyu. di leen sant di leen ne joyeux Noël yàlla may nu ñu fekk koy déwén ñu bare bare bare bare kenn du yéen. xarit. yow sama xarit nga sama yëf nga. <laughs> da ngaa a sañ sa nag. kenn du yow gisoon na dama def noir nga def noir. nga def balaa ma def blanc. Cheikh Ibra ak Sëñ Tuubaa. muy noir et blanc. yaa dégg alors sa diggante ak Dabaye explique ñu brièvement lan mooy sa diggante ak Dabaye premièrement. Dabaye suñu chéri la. deuxièmement. Dabaye suñu jigéen la suñu xarit la. kon moom du woote mel nii nit ñu baax ñu jóge fu ne. nit ñu am valeur yu jóge fu ne. Mm-hmm. Dabaye xeebul kenn. ku am 10 000 ñëw nga. ku am 1000 francs ñëw nga fii ndax dabaay moom mel noonu. boo ñëwee yóbbu dara. boo ñëwee yóbbu mi ngi nii dabaay nii la def man yóbbu man man def naa sama mbuus. dama yóbbaale. mais daal dama bëgg xam ne. Hmm. dabaay lii mu def nii. lii mu woote ak ay mbokkam ak ay xaritam ak ay nitu valeur am ñi nga xamte te ne dañoo am ay marchandises yu baax. Hmm. du pour kenn pour sénégalais yi la. pour africains yi la pour monde entier la. donc kon nag lii. Hmm. waru fi yom nee naa ko maa ngi ko na sax dabaay léegi da nga waroon continuer sax suba férié la. waaw gars yi ñu koy réclamé sànq de. doon war a dolli beneen beneen fan du ci yàq dara. def nañ ñetti fan bu nu dolli woon beneen day gën a neex mais daal mhm. lu ma la mën a wax mooy kontaan naa te ku fi dugg. di nga xam ne lu baax ngi fi. macha allah lu am njëriñ ngi fi jigéen la te day sëy Euh, euh, te on a gis ko mu gëm boppam di liggéey di daan dooleem lan ngay conseil xale yi jigéen ñi liggéey jot na góor ak jigéen ñëpp ko war a takk seen sër liggéey moom lii mu def nii c'est pas évident ah, xam nga lii euh, liggéey la lii liggéey bu wóor la lan ngay dénk xale yi jigéenu Sénégal xale jigéenu Sénégal xam nga danga ne liggéey jot na liggéey ba mu jotee dafa yàgg liggéey boo juddoo rek ba am 5 ans 6 ans rek day jot ndaxte jigéen fa lay commencer di liggéey mooy bu yaayam di togg day dagg soble yi dagg suppame yi dagg leneen bu papaam di waaj a génn day jël dàll yi raxas ba mu set loolu liggéey la. fa nga koy jàngee. fa nga koy jànge kon nag jigéenu Sénégal yi jigéenu Afrika fu jigéen mënti tollu loo mënti am taxawal loo liggéey taxawal loo indi. ci réew mi taxawal loo jox. jeunesse bi ñu gis si seen bokk bu ko defee ñëpp am. macha ñëpp liggéey. décembre album yi bari na de ku ne naan dàq bee dàq sama xarit bi bu daax <laughs> ah sexy boy da dafa génn ñu ne Wally woyagul. waaw le 19 lay woy waaye ba album bi génnee le 19 ku ne xam na la ci Diop Degen Mbaye. Ah. <laughs> dem ba Degen Mbaye. faramaarin bi sama xarit sama nit kenn du yow. yàlla na de yàlla defal jàmm la Ballago Seck. yaay chanteur du peuple. moo dàqale ah nit yow la ñu bëgg. moo dàqale moo waay dafa rawle dàqalewul. kontaan naa Aziz merci beaucoup.